nam Sénégal tabax nañ ko ba mu ne depuis le président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade le président Macky Sall je pense que li Sénégal traversé déjà euh, tax na ñëpp a naw Sénégal ci démocratie ci doxaliine mais surtout ci émergence développement ak également euh, ay nit ñoo xamante ne ñu bëgg seen bopp wante ñu bëgg Afrique bii nga xam ne ñun ñëpp a ko bokkal le président Macky Sall son excellence c'est li mu def pour Sénégal waxuma Sénégal mais pour Afrique ba tey ñu gën a jox kaddu Afrique ci euh, daan le concert des nations loolu kenn ku ne war a yore réew mi war nga ko sóoraale xam ne yore am réew du caaxaan rawatina Sénégal donc ngi ñaan nag. mbokk yi xarit yi ndax Sénégal ñun ñëpp ay mbokk lañu ak loo waxtaan ak sa moroom rek boo leen paree da nga xam ne sax ay mbokk ngeen moo tax nañu def yëpp ci jàmm ñu def yëpp ci jàmm joxante ay loxo kenn ku ne tànn ki la neex mais à l'arrivée ñu tànn ki nga xam ne njëriñu Sénégal lay doon bu ko defee nag ah Sénégal élection bu mës a ñëw rek nii la jàmm ci jàmm rek lay jeex